bu la samay wax doyul je crois que Jeune Afrique def na ci un dossier. Jeune Afrique waruñu teeru. waxuñu teeru bàyyi dama ne dama ne Jeune Afrique li ñu wax dama ne dama ne. Euh, euh, dama ne la Jeune Afrique def nañu un dossier. yegg nañu ba wan la wax la ki ñëwoon di négocier jabaram ak jabaru waaja euh, Ousmane Sonko seeni jabar dañoo xamanteeg nangam sangam dem nañu ba dugg ci ay détails. Mhm. loolu mooy rencontre yu njëkk yi. mais rencontre yi yamul foofu dafa am yeneen rencontre moo tax ma ne la du protocole Cap Manuel protocole lu teeru Baye Sogui la te bu wax jooju yegsee incha allahu rabbi je te dis encore une fois man duma wax dara loo xam ne awma ci firnde gu wóor dama la wax ne la ñi doon dox tànk yooyu ña dox tànk yooyu ba ñoom ñu wuy ji ci waxtaan wi même personne yooyu dox nañu tànk yi jëm si ci mag déet waay. ah kañ. ñoom Ousmane Yara. non dama ne la. non non non ce que je dis da nga ñi doon dox tànk yi. dama ne la man ki ñu ci dégg xam nañ ko. malien la dafa dox ban tànk la. non ñi doon dox tànk yooyu. dama ne euh, ci ñi doon dox tànk yi. bokk waaw y avait pas que Yara. waaw am na Ousmane Yara am na ñeneen. ñoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi. ñëw wax ak yow ñu ñi ñi xam. wax ñëw pour wax la lan. wax ak man ne la lan woo ma. Euh, euh, ne la lan mais pour ma gisante ak président dans le ci même cadre bi man ma jàpp ne Macky Sall du ku ñu war a négocier jamono boobu man ma bañ ne Macky Sall duñu kuñ du ñu war a négocier mais am ñoo xam ne ñoom ci seen bopp ñi doon wax ne Macky Sall jàkkaarloog moom faaw nga gat sa gat sa nga baal ma ci kàddu gi. man kay loolu garaawul. ñooñu ñooñu ñoo wëlbatiku. dem ruutaloo ak moom mel ni mburoog soow. ak seeni i réserve yegg respecté non yegg seen ay réserve non yegg xanaa xanaa déggoo déggoo ma même bu amee protocole dama yegg ci dama ba ci ne la yegg ba ci ne mhm. bi ñu gisantee le jeudi def photo présidence génn dama ne la waxtaanuñu le jeudi rek lu ko jiitu lundi gise nañu mardi gise nañu mercredi gise nañu jeudi lañ doog a photo am na keneen koo xam ne kilifa la génn na ne ñoom ci seen bopp deux jours avant les élections ñu ngi woon buntu kër makki sàll mu génn ay photo wane ko ba sànq ba tey dégguloo ko ko weddi gis nga Pape li am solo mooy wax ji da ngay dégg ñu ne wuy buggaan lu tax jàppalewu leen mais lan lañ bëggoon. xanaa ñun du li ñu bëggoon lenn la mooy Macky Sall jóge fi Macky Sall jóge na fi Bougane jàppalewu leen te Macky Sall jóge na fi mais waa kër Bougane kenn mënu leen génne ci victoire bi parce que li fi jëlee Macky Sall tàmba du du le vingt quatre euh, mars la tàmbali du le vingt quatre mars lañu ko liggéey dañ ko liggéey avant ma wax la ne la dañu am ay responsable yoo xam ne un peu partout dans le pays dans la région de Sédhiou je peux citer les communes de la région de Sédhiou suñu responsable le délégué national à la jeunesse bi nekk gëm sa bopp mais il a battu campagne pour la coalition Diomaye au niveau de Kaffrine suñu responsable yi fa nekk ils ont battu campagne pour la coalition Diomaye. dañ la défier quoi. non défier défier wuñu ma. man maa ne. xool leen ku dal ci seen xel ci opposition bi. mais coalition Diomaye ci opposition bi la bokk. ok ah Mbour. Mbour. Siré Sis ma fa nekk. nekk ci suñuy responsable mais moom coalition Diomaye la jàppale ah Mbirkilane suñu responsable yi nekk mbir Mbirkilane coalition Diomaye lañ jàppale waaye léegi ñooñu mun nga leen génn ci victoire. ci biir coalition Diomaye mënoo leen génne. kon nag Bougane yow coalition Diomaye nga doon jàppale. mais non dama déggoo lu ma wax de. <laughs> moom nga doon jàppale ah. encore dama ne. waroo woon nekk di xaar deuxième li nga wax nii normalement yow coalition Diomaye nga doon jàppale. carte yi après mu jeex dama ne waaye xam nga man. nit ñi mën nañoo am lu ñu xamul mais bu keroogee deal bi ñu deal ak Macky Sall bu génnee ba sénégalais yi teg ci seen loxo man dama ragal gàcce jàmbaar. man gàcce rek laa ragal. te gàcce xaj na ci. mais gàcce xaj na ci <clears throat> gàcce mënut gën a rëy dem toog ak Macky Sall diil ak moom sur le dos des sénégalais pour nga gën a pour nga mun a génn kaso pour que ñi ñu rey muy quatre-vingt-six jeunes sénégalais yoo xam ne rey nañu leen ñu dugal ko pertes et profits junni nit ñu tëj leen ci kaso yi xamuñu luñ leen tëjee. xamuñu lu ñu def xamuñu ñoo def xamuñu defuñu waa léegi ñi nga xam ne ñoo jël cocktail molotov sànni ko ci bus bi à Yarax rey ci ñaar xaw ma ñetti nit ministre de l'intérieur taxaw di ñu wax nu ay terroriste dañu am ci réew mi ñu gis ay pick-up ay nit yor ay mitraillette di tiire ci ay foule mais est-ce que ñun nekk nañu en sécurité nous sommes tous en danger c'est pourquoi je salue l'initiative bi nga xam ne am nañu ko jël. jàpp ne dañu war a yeggal mbir yi ci benn niveau pour que xeex boobu ñu mën a xam exactement ku ci loxoom laal ak ku ci loxoom laalu. mais loolu pour mu am am na bi lañ fiy jëlee kon. mais bu fekkee ne ñoom dañoo conséquent ni ñu def ba abroger ay décret yu président jël. conséquent passé wul voté wuñ amnistie bi. mais dama ne. conséquent passé wul seen ay député. Mm-hmm. voté wuñu amnistie bi loolu ñeneen nga koy wax mooy ñi ko voté waaw moo tax ñi ko voté wul amuñ ci benn part de responsabilité moo tax nag bi ñu ñëwee ba yor lenge yi mhm. ñu waroon dindi amnistie bi non dindi amnistie bi assemblée nationale moo koy def xanaa du lu leer lañ bëgg waaw dama ne moo tax ñoom bi ñu ñëwee toog waroon nañu jóg xeex pour ñu dindi amnistie bi ah, d'accord mën naa dégg loolu aussi simple jóg xeex peut-être pour ñu dindi amnistie bi nekkuñu ci mais mais d'accord nga ni d'accord nga ni laale ci dama ne la. ma ne ndax Bougane. loolu justice rek loolu justice rek non non laale nañu ci activité ak manifestation yi. ma ne ah, xam nga lan la wax laale nañ ci. Hmm. amnistie bi. Hmm. ci vote bi laale nañ ndax d' accord nga ni Pastef laale wuñu ci. waaw déggoo li ma wax de. waaw non c' est important. amnistie bi conséquence su deal bi la wala déggoo li ma wax yow. mais comment loo deal kay da koy da koy da koy da koy parafe. mais déggoo ma ne la amnistie bi ci conséquence su la ñu waxtaane la. mais pour pourquoi donc voté wuñ ko à l'Assemblée nationale. waaw mais lan moo tax moo tax ñoom ñu génn du dañoo voté amnistie kan moo ne nañu voté amnistie ki voté ki ne ki ne nañu voté amnistie amu ci intérêt ñi ko seetaan ba loolu am am nañ ci intérêt wala amuñu ci intérêt da nga mus a gis benn kilifa bu bokk ci ñoom bu jóg wax ne kenn warul wote amnistie bi mus nga ko dégg. amul kenn ci ñoom ku mus a génn wax ne amnistie bi. kenn waru ko bañ ci dugalee crime de sang. non dama ne ci lañ ci pare. dama ne dañu bëgg li nga bëgg mu leer ñoom itam lañ bëgg mu leer. mais mais mais doxewuñ ko. ok doxewuñ ko jëfewuñ ko. Pape il faut pas être l'avocat du diable. non du loolu la les sénégalais. Non. yi xam nañu ne tey jii Macky Sall ak Ousmane Sonko waxtaan am na ci seen biir moom ndeyu mbili gi nangu na ko nee naa la. fi ma d'accordul ak ñoom mooy dafa ne ñetti poñ la ñu jubawul man ma bëgg a xam poñ yi ñu juboo te poñ yi ñu juboo bokk na ci amnistie bokk na ci li leen génne ñoom léegi li ci des lan la loolu loolu loolu. loolu la ñuy xaar yow yow yow borom xam nga kat léegi parce que boo nee liñ juboo lii la non liñ nga ni bon bokk na ci amnistie bokk na si. mooy li nga gis leen génne kaso. mooy li nga gis soxlawul njàng mu rëy de. li nga jàkkaar lool. lu ne fang kenn du ko jeex. d'accord ok. ñett dafa ne ñett lañ jubawul man ma ne li ñu juba moo ma intéressé parce que li ñu jubóo waxuñu ko donc nañu wax lan la ñu jubóo. d'accord man nag loolu ñu jubóo. Mm-hmm. ak nañu ko waxtaanee nañu ko tëggee sur le dos de sénégalais moo tax ma gëm ne dañu fooyee sénégalais yi. d'accord xam naa nañ ci ñëwaat. mais mm-hmm. Bougane mm-hmm. en tant que opposant ba pare nga. parce que ñi nga amal affaire xam nga ni ñooñu du ñu cuune. bu dee raag la dàqoo leen a raag. bu dee nekk der gënu leen koo nekk. pare nga pour pour jàmmar la ak ñoom ci ci opposition. dafa am dafa am leneen luñ ëpp njariñ raag mooy defar te ñoom lañ takkal caq yi waruñu am jamonoy raag waruñu am jotu raag ñeenti weer puus na ñeenti weer rombagum na puusuñu paasuñu. tey la yëf yi gën a metti cin su naree neex su baxee xeeñ dañ ñu diggoon projet ñu jàpp ne projet am na ay nit dee ngir defendre projet boobu. mais gis nga projet bi. conseil de ministres lañ génn moom mii. non man li ma gis Abdourahmane Diouf brandir ko ci 2STV dama ko gis. waaw ah, yow rek yaa ko gis. yow gis nga non Bougane bu ma wax man rek maa ko gis. xam nga loolu aussi pour tooñ ma lu ñu wax ci télévision nga ne man rek maa ko gis. waaw déet ma ne. waaw bul wax loolu yow conseil lu ñu brandir ci télévision ñëpp gis ko nga ni ma man rek ma gis. conseil des ministres la ñu génn. waaw loolu dégg naa ko li ngay wax nii. waaw non dama dégg naa ko conseil des ministres waaw léegi waaw loolu li nga jàpp. waaw sañ nga ko bàyyil man ma jàpp li ma bëgg jàpp. projet biñ ne am na ndeyu mbilli gi boot xeex bi xeex xeex bi ba yegg si fi mu yegg si moom moo ne ñu ngi bind projet bi dernier trimestre deux mille vingt quatre la projet bi di pare. moom Bassirou Diomaye fay ci boppam président de la République. mais ñoom loolu programme lañ ko wax lii projet lañ ko wax. waaw ma may ma rek yow tamit. Bassirou Diomaye Faye ci boppam. le président